yéen kaay yi xëyee nañ ko tey ñu bëgg ee gindeeku leerlu ci leeru jamono Seydina Omar Ba Walf Quotidien lam ñu xëyee waaye yéen kaay ngir Walf Quotidien dafa ci ki nga xam ne moo di soxna Mimi Touré euh, candidate la jëm ci élection présidentielle laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naataangoo yi moom Mimi Touré ma ngi wax euh, bu yàlla defee ko ñu ci bopp réew mi la nga xam ne mën na koy def jëmale ko ci wàllu xëyum ndaw ñi yàlla jëmale ko ci wàllu industrie wàllu formation ak yeneen noonu la ko yéen kaay ngir Walf Quotidien xëy fësal moom soxna Mimi Touré xam ne Amadou Ba euh, may euh, euh, maanaam du jàll deuxième tour yéen a gi loolu la de fësal leneen aussi loo xam yéen a kaay gi xëy na ko fësal am na ay kaddu yuy jib daal di tuumal kii di Ousmane Sonko ne dafa am ay lobby yoo xam ne ñi nga bàyyi ko fële ci bitim réew ñoom seen jëm boobu jox nañ ko ay milliards la mu ci jublu woon mooy dooree ko bu bu jotee ci bopp réew mi lépp daal loo xam ne contrat pétrolier dañ koy renégocier waat noonu la ko yéen a gi xëy fësale loolu nag euh, société civile nag wax nañ ci euh, maanaam bëgg nañu daal euh, état ubbi ci ab l'enquête waaye aussi xaw nañ ci tey xaw nañ ci euh, tey daal ñu la ko yéen gi di la ko tëjee xëy euh, ba tey ci lu jëm ci financement bi nga xam la wax ne Ousmane Sonko dañ ko financé te ñu ko def benn lébu la boo xam ne yëngatu ci wàllu pétrole yi fii susi nag saako gaar ngir mbir ñu ubbi ab l'enquête noonu la ko yéen gi xëy fësal waaye bu ñu sukkandikoo ci El Malick Ndiaye doon kenn si jegeñaale Ousmane jàpp ne nangu ngir delloo wax ci électoral yi fukki fan ak ñaar ci weeru décembre tribunal grande instance hors classe bu Dakar moo fas yéene addu ci mbir mi mm-hmm. ñu ngi ko jàpp ni fukki fan ak ñaar ci weeru décembre source a yéen a di source a ne mbir yi bu doon ne combat la daañu xam mooy ultime cartouche kii di Ousmane Sonko maanaam fukki fan ak ñaar ci ci la xam ndax moom Ousmane Sonko dañu koy delluwaat ci liste électorale yi waaw noonu la ko yéen gi xëy fësal leen aussi loo xam yéen gi xëy na ko fësal Abdoulaye mm-hmm. te mooy euh, Amadou Ba miñ leen neexul ba neex waaye booy wër ko dàqatar rek Amadou Ba la mooy candidat nag coalition Amadou Ba ci jour élection yi dana tardé ba foofu du wote mm-hmm. noonu la ko yéen a kaay gii di euh, jamono ji wax ne élection présidentielle 2024 ko war mm-hmm. gi jàpp ne mbir jamono ji mars muusante la noonu la ko yéen a critique xëye Fesal Abdoulaye Aliou Tine la dalal ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naatangoo yi moom Aliou ma ngay ñaawlu taxawaayu ñi nga xam ne ñoo di suñu administration bii de noonu la ko yéen kay gi xëy fësale mm. euh, daanaka daal la euh, par maanaam féete gi nga xam ne daal dañ ko féete dafa doon loo xam ne lu ko metti la ko mooy ñu fexe daal woote waxtaan ndax réero amul ñàkk waxtaan rek ndax Sénégal toll na foo xam ne ni foofu ñu waxtaan mhm. bu fekkee tey bëgg nañu sauver gaal gi noonu la ko yéene gi di 24 yor yor bi lu mu fës Diop Taïf la dalal patriote la fan yee passé ko bàyyi mu génne kaso moom nag wax na ci yéene gi di yor yor nee na 2024 li mu mën a kitaab mooy Ousmane Sonko daañu ko fal def ko mu doon Euh, moom mooy fas yéene nekk président wala mu tànn koo xam war a nekk président noonu la ko yéen a kaay giir yor yoo xëy fësal am. di la ngoog euh, le soleil. Euh, yéen gii di soleil xëy euh, dellu ah. gi dox ci démb suñu naata ngoy ma ngay wax nag ci plan Sénégal émergent euh, gi mu jàpp doonte la lu baax la waaye nañ ko exécuté jamono ji jaarul ci yoon wax na nag ci njëgu dund bi ni mu yokk jamono ji wax na aussi naka la ñuy bu mën a moom suñu euh, li ñuy lekk ñu di ko dundee mm-hmm. maanaam ñu euh, waxtaan wu am solo la woo xam ne ko jëmale ko euh, ah. mm-hmm. Covid 19 am na ci daal ak diil gu toll ci juróom-ñaar fukk ak benn milliard koo xam ne xañ na ca loolu nag doon loo xam lu doy waar tax yéenekaay gi di tribune xëy tey ji daal di ci amul ab taxaw seetlu yéenekaay bi di stade wax ci Ligue 1 ak OL tey ci guddi lay doon maanaam bu fenteet jotee di Souleymane Isma eh, Ismaïla Sarr dana fas yéene joué mhm. waaye moom kese moo comme doomu Sénégal ndax ku ci mel ni eh, Pape Gueye du bokk ak kii di Elimane la ko yéene kaay gi star xëy fa la suñu lamb lam ñu wax ci combat war a dox ci diggante Diène Kaïré ak Zarkon combat bi ñu ko jàpp ne que fukki fan ak juróom-ñaar ci décembre waaye keroog nag seen jàkkaarloo xaw tuuti rek mbir yi eh, mbir yi mujjee soppali ko doon doon box ndax ñoom ñaari mbir xaw tuuti rek mu laale mhm. Diène Kaïré nag yëkkati na ay kàddam kon di artu Zarkon ne ko benn minute laa la may